sëñ sëñ Cheikhouna sa mag ju tedd ji sëriñ Basiiru Mbàkke Abdul Qaadar eh, dama dul faral di wax ci ay média ci internet ñu koy tasaar ak yooyu ndax man loolu da nekkul sama mbir waaye comme am na occasion danaa ko leeral danaa la ko leeral Mbàkke sëñ Bas démb dama koy xool ba yàgg rek ma yërëm ko sëñ Bas Abdul Qaadar murit yi mënuñu koo fay gis nga ku moytuwut sëñ bas ku moytuwut dana lakk nga dem sa sawara ndax xamal tax loolu mooy ñàqu sëñ bas li muy liggéeyal sëñ tubaa xajul ci benn murit loolu ma xamal ko sëriñ seexee sama sëriñ sama sëriñ la gaa mais sëñ bas sama wëllër la jaxasoo gi du lool waaye euh, damaa jàpp ni képp koo xam ne liggéey sëñ tubaa rekk la ñor waxuma la interpersonnel sëñ tubaa rekk la ñor da nga fonk sëñ bas ni muy jaxasoog état bi ak yi ca waral loolu lislaam moo ko santaane fii képp ku fi nekk président ku nekk xalifa dogal ba yàlla dogal da nga ko war a encadré boo encadré dogal ba wedd nga dogal bi yàlla te kilifa du wedd dogal bi yàlla <laughs> loolu moo waral te dëkk bi dëkku teraanga la teraanga la xam ku fi ñëw dañ la war a accueillir defal la teraanga parce que Sëñ Tuubaa teraanga la xam mais loolu tekkiwul dara dara dara lu dul yitte ji Sëñ Tuubaa amoon mu di ko jox ñi koy soxla si Tuubaa rek sëñ Bas euh, sëñ Abdoulaye kilifaam te joxe teraanga moo taxoon mu mu wax déclaration bu rëy ba sëñ Bass Cheikh Abdou sëñ Fallou mooy kilifaam te sëñ fallu danaan jëflanteeg nit yi yi teraanga teraanga ju rafet di ko di ko wax te sëñ Tuubaa rek tax kon nag maanaam man dama jàpp ni sëñ Bassirou Abdoul Khadar yoonu murit dañ ko ameel njukkal xam naa ñu bari xamuñu ko nag gis nga nit dana dugg bàmmeel dekk doo gis sëñ Tuubaa ñun nga lu tax ñun la parce que da ngaa noonoon sëñ Bass man maa la wax parce que jamono jii sag bi gën a rëy ci yoonu murit Bass Abdou Khadre la wallaahi ndax li muy dox ci yoon wi mm. sëñ bas lekkut sëñ bas naanut sëñ bas ay nelawam doyut sëñ bas foo ko fekk yitteem yëpp li mu yanu nii bu toogoon këram li mu war a am da koy am bu toogoon këram ña yaakaar sëñ Abdou Khadre fekk ko fa la mu war a am lépp da koy am du ci sonnante du ci ñàkk nelawante du ci am pression mm. waaye nag comme maamam daa dégg dégg ba dégg doyutu ko ñu ne ko coppit yóbbu 33 ans gisu ay mbokam moom war naa mën a dégg de ku yenu lu rëy dégg lu rëy ku yenu tuuti nag doo dégg daal waaye képp ku yenu lu rëy da nga dégg lu rëy moom déggagul dara de bay boom pare te xam ne lu dana ko gis parce que liggéey Sëñ Tuubaa bii képp ku ko yenu di ko doxal na nga ko war a doxale nanga nga bàyyi xel noonu Sëñ Tuubaa ya pare na pour sa kanam te yoonu murit dafa bari ñoo xam ne dañuy sol yére di wuyoo yo Sëñ Tuubaa yi tudd Sëñ Tuubaa te fekk na noonu démb yu yeesaat tey rek lañu ay pièges lañu dañoo ne ci yoonu meet maanaam ñoo gën a dansé ña nekkoon démb dañoo soppeeku rek noonu démb ya dañoo soppeeku léegi nag pour ñu mën a jekku mbir mi dañuy dañuy wax ni ay murit lañu la seerafaal ni wan lay bëtt ñag bi ci ñag bi lay génne mm-hmm. nu ko waxee noonu mm-hmm. loolam fi ne moo yeesaat peq peq peq waaye képp koo xamante ni bii ni am nga xam-xam tey settantal te am xalaat ñii da leen bàyyi xel sëriñ Bass Abdou Khadre ku mat a bàyyi xel la Cheikh Béthio mii ñuy wax nii ku mat a bàyyi xel la ndax képp kuy xool image yoonu murit da nga gis titre boo xam ne da nga xam li Sëñ Tuubaa rek moo ko waral da nga xam lii Sëñ Tuubaa rek tax mu di ko def te loolu sagub yoonu murit la nit nag ka lay sagal boo ko xalabee bëggoo lu baax nit mun di la sagal fu mu toll di def loo xam da ngay xam ne kii day sagal yoonu murit nga di ko ŋaañ nag di ko wax loo xamante ni tegoo ko fenn loolu baaxul waaw kon loolu moom Mbàkke maa ngi la koy seeral ndax sëñ Bassa lépp la te sa mag la waaw yàlla man euh, danaay toog ba yàgg ma ni gis nga man jàpp naa ne jihaad mu ngi tàmbale ci dox sama di dox diggante ñi dox diggante maanaam ñi nga xam ne ñu ngi jéem a xool benn bët suñ bas bu dul gël suñ tubaa ñooñu sax ku jëflante ak ñoom boo dee àjjana nga jëm yàgg ñi dem Badar yéen yam ndax yoonu suñ tubaa wii kat xool nan ba xam ne fi ne nii suñ bas rek lañ mën a daaneel am liñ bëgg ndax suñ bas a taawu lépp mooy sagal yoon wi nelawut yëndalut lekkut naanut soo ko xoolee sax yërëm ko kooku kon ñaanal ko rek moo war te xam ne sagob yoonu murit la ah képp ku bëgg Sëñ Tuubaa day tey sagoo Sëñ Tuubaa te bëgg yoon wi avancé ëmbal nga Sëñ Bass cofeel waaye képp kuy noonu Sëñ Tuubaa day te bëgguloo dara Sëñ Tuubaa da ngay mel ne leen ci Sëñ loolu yàlla dogal loolu man damaa def euh, xum observateur nga xuma hmm. dama def ab seetlu xalaat ni dëgg-dëgg Sëñ bas ku jar di ñaanal la màggal gii bu ma koy siifur di ko bàyyi xel léegi-léegi sax yërëm ko wallaahi damay mujj sax yërëm ko te yàlla rek tax bu amul woon ku mel ne sëñ Bass rek musiba am loolu yàlla suñu borom dogal wax jii nag dama ci yemale fa man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur ku neex sama yoon nekku ci ku mu naqari sama yoon nekku ci kenn dong la ci sàkku ngërëmal muy Cheikhul Khadim te xam naa ne neex na ko waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu li